alxabiiro noo ngi ñaan yàlla siyaare ji muhammadu rasulullah alxaliimo alxasiimo noo ngi ñaan yàlla siyaare ji muhammadu rasulullah alxafooro alsakooro noo ngi ñaan yàlla si yaare ji muhammadu rasulullah alhaliyo alkabiro noo ngi ñaan yàlla si yaare ji muhammadu rasulullah alhafiso almuqiit noo ngi ñaan yàlla siyaare ji Muhammadu Rasulullah alhasibo aljalilo noo ngi ñaan yàlla siyaare ji Muhammadu Rasulullah alkarimo arraqibu noo ngi ñaan yàlla siyaare ji muhammadu rasulullah almujibu alwaasiun noo ngi ñaan yàlla siyaare ji muhammadu rasulullah alhakimu alwaadoodo noo ngi ñaan yàlla siyaare ji muhammadu rasulullah alsaboro alsaboro noo ngi ñaan yàlla siyaare ji muhammadu rasulullah bur yàlla noo ngi ñaan gi la ñaan siyaare ji sama turando borom Makka ak Medina bur ñaan delloo ti di la ñaan siyaare ji sama turando borom Makka ak Medina muridan wa rahmatan min lil badi xayrin wa ma fiha sëñ Sidi Muxtaar yàlla na fi yàgg lool ak mboolem kilifa yi fi nekk yëpp jërë ngeen jëf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 ngeen baax koo am guddeeg ajuma gu jot ci waxtu wi ànd ci ak seen mbokk ak seen xarit al oustaz Xasan Diouf ci wàllu laaj yi al oustaz Xasan amati nañ gan gu tedd tabaarakallaahu di boroom xam-xam di jàngalekat tey mu nekk gan ci plateau bi war ñoo waxtaanal ci azaka ndax ñi ngi ci weeram nekk ci jamonoom ñu koy tuddee al oustaz Mouhamed Kontay al oustaz bisimilah oustaz Hassan euh, jërëjëf oustaz ni nga ko waxee noonu la ñu ngi waxtaanee benn ponk bu am solo ci diine muy azaka ndax njariñam mënees na ci teg bët waaye itam am na ci wàll woo xam ne kenn du ci teg bët waaye am na solo ci société te mooy jàmm ci wàllu koom loolu moo tax azaka jóg hmm. kon sujet bi am na solo waaye itam ñëw na ci waxtoom ndax bu ñu waxee yaakaar naa xel yi dina dem ci war a génnee azaka ji nga xam ne atal na ci rawatina ñu bari ci jullit ñi dañuy kole euh, seen génn ak azaka ak euh, boppu at bu ko defee waxtaan wi ñëw na ci euh, waxtoom ki ñu ci dalal itam juumuñu ndax doomu daara la muy Mouhamad Kontey di jàngalekat ca dëkk bu ñuy naan coofak ca kawlax ñu am mbégte rek di ko dalal ci émission bi mu war ñu indil rek azaka ak jeexital yi mu bàyyi ci biir société bi ak njariñ yi mu bàyyi ci biir société bi pour mën ko tabax ci wàllu koom waaye wàllu social kon euh, oustaz Mouhamed ginnaaw bi ñu la tatagalee rek ñu bàyyi la nga indil ñu ponk woowu alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahimi maliki yawmi ddini iyaka naabudu wa iyaka nastainu ihdina sirata almustaqima sirata alladina anamta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala ddallin amin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 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah, mbokki jullit yi tedd yi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci at mu bees mi di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ñu ñëpp ah, ñu fi yàgg koo teewee yàlla ba mu nekk suñu mu ak at ci kaw suuf ñoom mbégte lool ak kontaante ci plateau bu tedd bii ñu dalal ñu Euh, donte sax xam-xam moo tax ñu dalal ñu donte xam-xam booba sax lépp nekkut fi ñu ngi ñaan ci mbaaxug yàlla kartanam yàlla nañu yàlla dooleel ba dara man cee wàcc ñu am mbégte lool indil leen mawdon bu jëm ci wàllu azaka ñu ñuy tuddee zakat euh, tënk ko ci point yu gàtt rek zakat baat bi fu mu jugee ci luxatan ak itam bu ñu waxee zakat ci chariatu dégg nga ci saraan euh, lu tax ñu tuddee ko tamit zakat ak importance bi nga xam ne azaka am na ko ñi koy joxe tamit muy génne gi ban njëriñ la leen di jural ak ñàkk ko génn tamit yan conséquence moo ci nekk bu ko defee tamit buñ génnee azaka nuñ ko war a jox euh, loolu xam naa ne mooy nekk aaxiru nutq maanaam mooy nekk tomb bu mujj azaka nag sëñ haadi buñ ko waxee ci luxa laha iddatu maanin am na maanaa yu bëree bëri bokk na ca arab da ko di tuddee ak tahaaratu muy firi laab waaye tamit buñ ko waxee ci loxo dañ ci di namm an nama ubbi firi ak dolleeku waaye tamit dañ ci di wax azaka tamit namu ci ak tamit dañ koy wax namu ci assalaaxu bi firi mbir mu yëwén su ko defee nag maanaa yi yëpp nga gis muy ñeenti maanaa yu am solo yi yëpp euh, baatu azaka moo leen mujj ëmb rek kon lépp li nga ciy mujj li ngay mujj jàngee ci darsu bi mooy ndeke azaka daal génne ko moo gën ñàkk koo génne daal te itam euh, tuddee nañ azaka sadaqa euh, jëlaat sadaqa tamit tuddee ko zakat dégg nga foqaaw yi dañuy wax ne tusamma zakatu sadaqa fa sadaqatu zakatun wa zakatu sadaqa yaftariqu l ismu wa yattafiqu l musamma léegi nag dañuy jël zakat tuddee ko sadaqa jël sadaqa tuddee ko zakatu Euh, booy xool nag da ngay gis ne kon tur yi dafay teqalikoo waaye al musamma lañ bëgg a tudd lenn rek la dégg nga mooy azaka mii ñu war a waxtaanee zakat nag buñ ko waxee ci charan moom fa hiya tatluqu ala miqdaari min al maali faradahu llahu fi amwali l agniyaai lil mustahiqina laha euh, buñ ko waxee ci charan mooy benn somme boo xam ne yàlla moo ko daggal boppam ci alalu ñi nga xam ne farataal na ci seen alal ak asaka nga xam ne koomtal nañ mun ne leen génne leen som bi ngeen jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ay foqara lañ leen di tuddee dégg nga ko mënuñ amuñ seen loxo jotut seen ginnaaw su ko defee nag ak ñeneen ñu duwut foqaraaw seen lim dana ñëw waaye rot na ci alquran laaye joo xam ne daal yàlla moo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salawataka sakanun lahum yàlla na yonent bi jëlal dégg nga ci seen alal ñoom julit ñi benn sadax boo xam ne da nga ci laabalee seen alal yi moom kon ndeke foofu am na sew-sew ndax sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim diggante tahaaratu ak zakaatu boobu noonu dégg nga soo xoolee da nga ca fekk sew-sew yoo xam ne Euh, kenn du ko am lu mooy koo xam ne génn katu asaka la ndeket ci sens si xamee nañ ci ne alal buñ ci nit bu génnee asaka rek yàlla fegal ko musiba boobu ñuy tuddee baatab shaxu nga xam ne maanaam mooy nay goo xam ne ci bakkan lay taq alquran ne wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaayika humul muflihun kon ndeke génn katu asaka moom dafay génn ci mawdo boobu noonu moom euh, yàlla laabal na bakkanam ba ñooñu du ca bokk waaye tamit ndeke tamit nit su génnee asaka Euh, dafay bokk ci ñooñ sell ñi nga xam ne euh, azaka dafay sellal ruuxu ndax nit su ko yàlla mayee alal dafa bëri lu muy doxee doxinu damaa am bëri nu muy xoolee xoolinu damaa am bëri nu muy jëfee nu kii dafa am yooyu yëpp nag ay xeetu bakkaar la yoo xam ne dara du ko effacé lu may génne azaka xaq jooju yàlla wax na la génne ko jox ko ñi nga xam ne mënuñ loolu su boobaa da ngay bokk ci ñi alquran doon wax naan euh, kalla innal insana la yataxa foofu tamit oustaz haadi sooy xool alquran ak balaaxa bi mu yor innal insana la yataxa yàllaa ngi bëgg a jàngale xaat eh, ne mbewte gi may wax ci doomu aadama li tax ma wax ko man yàlla maa ko gën a xam te itam feddali na foofu tamit ndax indi na inna muy tawkiit dégg nga eh, di inna foo fekk liggéeyam day nasab li sim a xabar mu jël insaana eh, dégg nga ko nasab ko muy li si moom jumlaay baatub yataxaa mu nekkee barab rafan di xabaru dégg nga ko inna waaye yàlla tamit jëlaat mu taw kiit def ca la yataxaa pour lan gën a dëgëral ne li may wax nii man yàlla xam naa ci dara ne doomu aadama dafa yomba beew su fekkee may nañ ko kon nag soo fexee ba asaka ji génnee noonu inal insaana la yataxaa an ra'aahu staxna foofu ngay mujj nekk an naka lay mbir tey mbir day ra'aahu gis nañ ko istaxna muy aji sàkkoo doylu kon nag loolu yëpp fooy mujjaat inna ila rabbika rujaa dégg nga kon nag nga gis ne asaka signat lu am solo la Euh, bakkan la waaye tamit nee naa la luy saafara tamit sell ak euh, ruuxu la lu tax nag ñu tuddee ko zakat mooy tuddee nañ ko zakat ndax ne euh, baatu zakat tamit dafay firi annama wax naa la ko sànq ak dolleeku ndax li annaha tanmal maalu lesi uxrijat minhu wa tabaraka fiihi azaka lépp lum génn rek daf koy màggal te tamit daf cay mujj desal barke boo xam ne kenn xamul màggaay yi barke boobu ku dul yàlla mi ko xam ne moom moo farataal asaka te itam sëñaa Euh, foqaaw yi dégg nga euh, foqaaw yi dañoo wax ne sooy wër ci àll bi am na genn gàncax gooy faral di gis muy gàncax ak ñax goo xam ne xëy jaan lañ koy wax maanaam du màgg dara nam toll rek lay toll euh, ñàkk màgg googu na muy ñàkkee màgg du dem fenn ñu ne alal tamit baloo ko yàlla joxee te doo ci génne asaka alal ja noonu rek lay mel du màgg te lépp lu màggul rek arab nee na lépp lu dooleekootul rek ci wàññeeku la jëm hmm. kon li nga déggee mooy ndekee Euh, dugub ji buñ ko jiyee engrais bi moo koy dundal ba màgg mbokk mi urée bi alal ji ndeke asaka mooy fexe mu dolleeku dolleeku boo xam ne kenn doo xam appam kon daal ndeke asaka bi ko yàlla tëralee intérêt bi ci nekk lépp doomu aadama rek moo ko jariñoo waaye tamit am na beneen beneen xikma bu ci nekk mooy nee naa la sànq ak niyaa uyi néew na lu seeni i bakkan di sell su ko defee nag génn asaka dana la muccal ci nay ak ci xeeb nit koo xam ne loxoom jotut gannaawam nga foog ne ñàkk jot gannaaw gi moo ko teg boppam fekk tegul ko boppam eh, yàlla mooy maye su ko defee tamit bët boobu nga ko doon xoolee noonu bàkkaar boobu asaka mën na ko effacer ak dégg nga asaka tamit mën naa tax ki ñu koy jox muy foqaraaw bi nga xam ne dafa dégg nga faqir bi nga xam ne dafa ñàkk ñi di ko ko jox bakkanam bi asaka mën na koo laabal ci jàngoroy añaan ak jàngoroy mbañeel ndax doom aadama tamit su ko ñàkk ganee dafa bëri lu koy añaan di gane si ndax ku la romb rek mel na mu war a mel nga ne lu tax mu mel nii Eh, dégg nga ko ndagam sa sago boo sañoon rek kenn du eh, du mel ni wala boo soñoon waa ji du mel ni wala du am li mu war a am yooyu yëpp kon nga gis ne eh, ñàkk rek moo koy indi te waaja lam waxoon ca téeram ba ne gars yi de ñu ngi may iñaane waaye duma leen ci yedd ndax ñi ma fi jiitu woon te ëppoon ma ngëneel dañ leen a iñaane woon in yaxsudu gayru laaimihim qabli min annaasi ahlal fadli Euh, jox nit azaka dafay effacé ci xolom kañaan ndax nit su jëlee som bu yaatu ci azaka teg ci sa loxo kooku fuñ ko tuddati sa kanam nga ne iskay fu mu la romba teg teraanga nga ne yàlla na ko kon kay kañaan jeex na te itam mbañeel tamit nit boo ñàkkee ñaareel dafa bëri looy bañ loo xam ne sax sa yoon nekku ci waaye da nga ko bañ te ñàkk rek ko koy tax bu la yàlla dimbalee nag bañ jël azaka teg ci sa loxo mbañeel googu dana mujj dégg nga ko jeex tàkk ci sa xol ba na sax sun mag ñu baax ñi fi nekkoon euh, daan nañ def yitte lool ak lu jamono doon métti métti ci seen boor pour jéem a dajale alal pour mën a génne asaka dégg nga ko génne nañ asakaay mbay génne nañ asakaay jur génne asakaay xaalis tawoon leen lool ba am ñenn ci ñoom ñu doon def ay pexe sax pour dajale fi alal ren ba déwén pour mën koo génne asaka ngir bokk ci tiyaabu ji mbaax lii lépp mbaax rek lañ doon xencu ku mel ni suñ maam cheikhul islam haaj ibrahima Niass wax na nettali nañ ne dafa mos a jël benn som ci alal euh, dénk ko benn taalibeem si Aliou Cissé na ko dencal ma ko fii ndax ma jéem a def yitte ndax danaa génne asakaay xaalis euh, laaj naa ko nag doomam dégg nga laaj naa ko sëtam sëriñ Mahi sise mu ne ma euh, moom gisul loolu fu ko bàyyi bind wala fu mu ko wax waaye lim xam daal gis na ci téere boo xam ne euh, Mouhamad Abdoulaye Wuldu Seydi moo ko bind ca Mauritanie tuddee ko Maza ani Cheikh Ibrahim téereem booba soo fa demee da nga fekk mu nettali ci xissa bi waaye tamit terewut kenn gisul daanaka fu Cheikh Ibrahima bindu loolu ci wasaaya wala ci leetar wala ci nangam waaye sëñ maa yi moom dollil na ma ci ma man gis naa ci leetar bu wér boo xam ne moo ko bind Ahmad Sukayri ja doon ko wax ne ko man day yittey doomu aadama yi ak soxla yeeg jëriñ gi ma leen di jëriñ tax na mënumaa dajale alal pour mën a génne asakaay xaalis kon loolu daal mooy li gën a wér doon na ca def yitte waaye xëy na yàlla dogalu waaye yooyu li nga ciy mooy ne ñoom l'islam moo leen ñor rek ba tax na yàlla lum na acca rek ñoom ña nga ca lum na bàyyi leen rek ñoom it ñoo koy njëkk bàyyi kon nag sëñ Hady asaka ngi noonu am na tamit eh, dégg nga ko importance bu am solo bu ci am boo xamante ne nii ndax asaka ci boppam kenn la ci ponk lislaam yi juróom sax na itam ak waram ci alquran ak sunna ak ijma yàlla fu tuddee julli ñaareel rek asaka la cay teg aqimu salaata wa atu zakat yu bëree bëri ci alquran loolu yëpp li nga ciy jàngee mooy ne ah ndeke asaka ci boppam lu lu eh, dégg ko lu ama am solo la soo demee tamit ci mag mu baax euh, Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wax na tamit ne amma zakatu fal faraidu laha tuaddu arbaan xuzuha kullaha niyatuna tamamu hawlin wa tamamu nisaabiha adamu naqliha tamamu sëñ Tuubaa mu ne azaka farata la boo xam ne euh, def na ko lim muy dégg nga def na ko limal ñeent yoo xam ne na ngeen ko jël yëpp te bañ cee bàyyi dara mu ne mu ne asaka da nga yéene ne euh, danaa génne asaka ci sama alal su fekkee mat na te itam na mat nisaab euh, na ko na mat tamit at te itam soo ko génnee na nga ko joxe fa nga xam kon bul jëlee azaka ci place buñ ko gën a soxlaa yóbbu ko ci barab boo xam ne dëgg-dëgg soxla sa melul noonu loolu tamit shariatul islam bëggul Euh, jërëjëf euh, Serigne euh, Mouhamed Konté yaakaar naa waxtaan wi am na solo Oustaz Hady fàttali na ma benn wax joo xam ne benn xakim moo ko waxoon ci alal bu ñu joxe muy azaka wala muy sarax mu ne bu fekkente ne da nga jël sa alal nga joxe ko muy azaka wala muy sarax alal ji dafay jàkkaarloog yow ne la yéemu naa ci yow ndax man dama tuuti woon nga bareel ma ndax boo joxee rek yool ba nga cee am ak barke ba nga cee am dafay yokk mu ne itam yéemu naa ndax dama euh, nekkoon loo xam ne lu dul dundal yow nga dundal ma ndax sarax dafay mel ni benn jur boo xam ne da nga koy yar dafay gën di màgg di màgg di màgg di nekk yool ci sa kanam mu ne itam maa la doon yaa ma doon garde bi nga may moom man itam maa lay garde actuellement nii waaw soppeeku naa nekk di di la garde ginnaaw bi nga ma daan garde yooyu yëpp kon joxe euh, azaka wala euh, oustaz di sarax lu am solo la kon ma bàyyi la nga sof ci loolu balaa ñuy euh, delluwaat ci xasan njëkk sof gi rek mooy rafetlu waxtaan wi oustaz Mouhamed kon tey wax na wax ne asaka benn tur la waaye yu bëri ay tur la mhm. danañ koy tuddee zakaatu wax na ko dañ koy tuddee at taharatu xataa sax danañ koy tuddee al urfu dañ koy tuddee xaq yëpp boo ci dem aaya al quran la dañ koy tuddee xaq moo tax al quran ne wa aatu xaqahu yawma xasaadihi ñu déggee ci ne ndeke asaka yow mi koy joxe moomoo ko mais xaq la ci juróom-ñetti xeet yi yàlla lim nga war leen ko jox nit nag boo lekkee xaqam rek mu feeñ ci yow mm-hmm. dana feeñ tamit ci sa xalal te kon alal ji àq la droit la boo xam ne da nga ko war a jox juróom-ñetti xeet yi alquran tudd moo tax yàlla tuddee ko xaq mm-hmm. ñaareel boo ko see tamit alquran da ko tuddee urfu wa amur bil urfi wa urfu jooju asaka la ci yàlla namu digl digalal saxaba yi digalal ñi lay déglu digalal sa xeet wi ne nañuy génnee asaka mm-hmm. xudil afwa wa amur bil urfi urfu jooju asaka lay tekki boo jëlee baatab tatahir bi nag ak baatab zakatu bi yàlla bool na leen ci benn aaya moom nga dégg mu ne xuf min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha waaye akay ah, dañ koy tuddee tamit sadaqatu ni muy ni muy tekkee zakatu lay tekkee sadaqatu moo tax alquran ne innama sadaqatu lil fuqaraa kon yooyu yëpp ay tur lañ te xam nga bërik tur ulamaawu balaaga day wax ne dafay tegtale tedd ak rek la ñuy tudd kon asaka tedd gim tedd tax turam ya bëri ci anam yu bëri yooyu yëpp Euh, mu nekk nag loo xam ne lu ama am solo la ci képp koo xam ne nga jaalal bi ku mat nisaab nga génne ci asaka génne ga sant yàlla la xam nga sant yàlla mënut ta paase fekkee ak fekkeele nit fekkee na fekkee fekkeele wut nit tamit fekkale na te moom fekkee wut yow yàlla may la fukki weer yeeg ñaar yëpp ñu bëri génn ci àdduna yàlla may mu fekk la fi hmm. waaye en même temps tamit yàlla may la alal joo xam ne dafa fekkeele alal jooju ne ba bareen di dewen fekkaat ko fi dëgg dëgg da ngaa war a sant yàlla nag nga génnee alal jooja jaamoo ko yàlla xam naa da def sant yàlla ak jëf wante sant yàlla yi ñetti xaaj la sant yàlla ci sa xol sant yàlla ki sa jëf sant yàlla ci sa làmmeñ sant yàlla yëpp nag sant yàlla ci xol moo ci ëpp doole mooy nga yëg ne xéewal gi yàlla may ma fekkee gi may ma fekkale gi kenn joxul ma ko ku dul yàlla su ma ko xañan tamit du sotti ko moom la alquran ma bikum min ni'matin sant yàlla ak jëf gi nag mooy nga nangoo génnee alal jooju fekkee yow euh, le nga yëkkati ko jox ko tamit ñu ko xeyoo ci i'malu ala daawuda sukran nga def nag sant yàlla ak làmmiñ gi tamit yi wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis mm-hmm. yii yëpp nag kon asaka génnee ko sant yàlla la gu rëy rëy ci ki nga xam ne tamit maanaam mi ngi koy def te nag boo nayee bëgge ba génneewuloo ko tamit mm-hmm. ñaara lay xaar mm-hmm. benn bi àdduna la beneen bi àllaaxira la bu àdduna bi mooy yàlla moom dina ko génneel boppam te yàlla bu génnee rek mu ëpp génneeg yàlla ga nag mooy alal ji lakk wala ñu sàcc ko wala ñu nax la ci wala ñu tiriyaal ko wala nga feebar fajoo ko wala sa njaboot feebar nga faj ko ci xam nga jooju alal génneeg yàlla la wala nga jënd ci ay oto mu mu mujj accident te yàqu rek waaye nag geneen beneen mbugal mi lay xaar nag mooy àllaaxira saa yooy yore alal war cee génne asaka bañ koo génnee muy eh, dollar beeg eh, CFA beeg yooyu yëpp dañ koy tàngal ëllëg ba mu nekk di safara ñi la koy ñaas mm-hmm. walladina yaknizuna dahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fa bashirhum bi adabin alim nga yàlla bu ne fa bashirhum rek kooku tahakkum la mm-hmm. dafa lay ñaawal xam nga ne bégle wax dëgg yàlla ci luy bégal mm-hmm. waaye bégal leen ne maa ngi leen di lakk safara doog ko firee xamal leen rek ne maanaam loola ñu doon denc di ko ndàmb bañ ci génne alal bu yowmal qiyaama dañ koy lakkee ñaasee leen ko gàtt ya nag ñu soppeeku ay boromi béjjén di la di la di di la di la mbëkk mm-hmm. ngay ngay daanu ci montagne di dugg ci biir xuru safara yi te loolu tamit yonent wax ci hadis mm-hmm. eh, kon loolu lépp eh, lu jara bàyyi xel la asakaangoog ci weer wi eh, ñi nga xam ne yàlla may na leen ñi ay jarga am nañ nisaab ba ca nag ya mm-hmm. muy fanweer ya am nañ ko ca xar yaak bëy ya muy ñeen fukk ya am nañ ko ca gëléem ya muy juróom ya benn bu ci nekk nañ ca génnee asaka ci ni ko yàlla bëggee ñi nga xam ne tamit nag dañoo di dañuy bay ak ci xeetam yu wuutee yaak la ñuy bay ñi mën koo denc mën koo dundee mu mat juróomi dabi wusux boo koy gam-gam la juróomi juróom benn bërigo su boobaa nga denc ko nga bay ko ba pare fexeel nga génne ca asaka loo mën a compter yaa xam juróom-ñeent ya jëlal comme yàllaa taw fukkeel ba nga jox ko fuqaraaw yeeg masaakin yow mi yor xaalis tamit li nga bañ ko gam-gamlee mooy tolloog ñaar fukki diinaar gam-gamlee jamono ji mooy tolloo quatre-vingt-cinq grammes ci or soo ko tolloo ci CFA daanaka un million deux cent la lay jox nga denc ren ba déwén su boobaa nag ñaar téeméer yu ne juróomi dërëm un million bu ne nga génnee ci vingt-cinq mille yow commerçant bi tamit at mi dellu si na sa bitig bi ci li nga ko jëndee woon mën na li nga koy jaayee tamit mën na nag ñaar yëpp mën na su ko defee nag ak xaalis bi génnee ca bitig ba te sànkaguloo ko loolu lépp nga boole ko euh, jàpp ne li ma li ma jarle woon sànkaguma ko deux millions la bi ma inventaire bitig bi 4 millions la nga génnee asakaay 6 millions su ko defee 1 million bu ne juróomi dërëm loolu lépp nag bu ko ñëpp taxawee rek nag dana génnee dana dàq soxor dana dàq añaan dana dàq bañante dana dàq te agression bu bëri bi tey ak wax yu bëree bëree bëri ndax yonentu la mu waxoon lu gàtt la tahaadu rek taxaabu euh, maanaam mayante leen rek ngeen